naa signé nañ ko mu ngi mu ngi dem prison loolu moo tax ma ñëw fii pour vérifier parce que aussi souvent ñoom kayit bi mën na ñu téye nit ki ba ngoon ba guddi ba génnee ko ci sutura ak yooyu ñu médiatiser ko bañ caméra yi bare journalistes yi xëy na loolu moo tax man lool laa doon vérifier ndax dëgg la pour seet aussi ndax conditions yi muy génnee moom amul observation particulière ci dernier jour yi parce que jom yéen ñëpp xam ngeen ni yaa 3 4 jours génne na benn courrier bu lëmbal euh, wër àdduna bi yëpp li ciy wax mbébét yooyu conséquence yi ñun xamuñu ko li mu indi xamuñu ko à son niveau yi fallait kon ñu vérifier condition yi muy génn ndax normal na on nous a dit génn na sans aucune entrave mu benn problème bi juge bi joxee ndigal parce que procureur bañul bi yoon donc ñoom kayit bi ñëw na def nañ li doon def ñu mën a comme da ñëw bi mënatoo ko gis ndax Guy Marius Sagna bokkatul ci suñu effectif détenu bàyyi nañ ko ñibbi na wasalaam loolu la ñu amoon lu ñu wax. merci bu gërëm di leen sant. en interrogatoire dans d' autres dossiers il nous a confirmé que l'ordonnance est prise voilà nous nous sommes des avocats ce que nous connaissons c'est les avis d'ordonnance les avis n'étant pas établis on, on, on attend demain qu'il nous les communique mais en tout état de cause il nous a confirmé qu'il avait le, la main levée du mandat de dépôt et que l'avis a à la prison du camp pénal. donc à l'heure, euh, donc euh, vers les 12h30, 13 le camp pénal. Voilà, ce qui veut dire que dès que c'est l'État, hein, ils attendaient déjà tout cela, ils sont des services qui Je pense donc qu'ils avaient fait le nécessaire. Et qu'on n'a pas voulu vous permettre d'immortaliser la sortie de M. Guy-Marie Sagna. Bon, en tout état de cause, moi, j'ai sollicité une visite. Je ne pouvais pas venir demander si M. Guy-Marie Sagna est bel et bien dans vos locaux. Je sais qu'il est là et donc je suis venu solliciter une visite à ma qualité d'avocat. Bon, ça, vraiment, on a beau être au Sénégal d'aujourd'hui, où il y a un passif humanitaire euh, notable que tout le monde a enregistré, mais les droits des avocats sont encore préservés. On m'a dit gentiment au niveau du greffe du camp pénal d'où je sors que, que, je ne peux pas voir M. Guy Marissagna parce qu'il vient d'être élargi, il est sorti. Donc retenez qu'il est sorti. le guet, je vous conseille donc de rentrer ou bien de vous enquérir à ses amis de son adresse et d'aller le voir là Mais il n'est pas là. nañu wàññi courant bi nañu bàyyi Guy Marius Sagna bi génn ci kaso bi benn point de revendication bi satisfaire na maanaam Guy Marius Sagna bàyyi nañ ko tey këram lay ñibbi euh, beneen bi ci topp mooy nañu wàññi courant bi donc ñun collectif Noo Lank fii ak wax suñu agenda dinañ wax nan la ñu a taxawaatee ngir ñu wàññi courant bi waaye leer ba leer mooy combat bi tey la gën a takarnaas a métti euh, tey incha gën a déterminé wu ngir fexe ba tey jii nii euh, ah, ah, gouvernement bi ni mu bàyyee Guy Marius Sagna nag wàññee noonu courant bi ndax askanu Sénégal kat dañu sonn mais si parce que rarement ci histoire du Sénégal peuple sénégalais euh, mu mobiliser wu sur une cause avec autant de constance euh, depuis trois quatre mois da ngay xool ci ndaje yu ñu amal yëpp euh, de façon constante le peuple a répondu à l'appel de suñu première manifestation bi ñu def place de l'obélisque à bi ñu mujj def awee buntu camp gis ngeen sénégalais yi nu ñu génnee loolu nag dafa dem ba kilifa diine yi kilifa aada yi opinion internationale bi yëpp ñu exercer aussi une pression sur le gouvernement pour que Guy Marius Sagna bii ñu jàpp te teguñu ko ci yoon ñu bàyyi ko. donc euh, amut gouvernement bu mën a ñun xamoon nañ ni bras de fer bi euh, du mën a sori torop du mën a sori euh, et que gouvernement bi dina dem ba dootul amati beneen beneen option lu dul bàyyi Guy Marius Sagna ñun vendredi bii di ñëw dañu waajaloon coronavirus bi sax moo tax tey annoncé wuñ ko. mais vendredi bii di ñëw dañu mbëbatoon amal fii sitting ci buntu camp ba ñu bàyyi Guy Marius donc pression bi demoon na ba toll fi nga xamante ni ñoom li desoon rek mooy ñu xool nan la ñuy doxalee ba ñu accordé ko liberté provisoire ndax demande de liberté bi ñu def ba ñu bàyyi ko tey moom lañ defoon ci ay jamono ñu bañal ko amul lenn lu changé mais pression bi moom moo yokk rek de tell sort que mënuñu woon euh, baña a libéré Guy Marius non Guy Marius Sagna dégg ngeen ko te ñun ñu njëkk ko wax et que moom mu fësal ko ci benn lettre bi mu jibal ci ñaari fan. voilà donc amul benn négociation y a eu aucun protocole ce qu'il y a que tey jii nii euh, pression bi ni mu fooree euh, mënuñu ko woon bañ a bàyyi donc ñu ngi doon jéem nag di xool nan la ñuy voilà mais loolu ñun nanguwuñu ko fexe nañu ba ñu rester digne reste à ce bu ñu koy bàyyi na doon bàyyi ko ak ay principam te loolu la ñu sàmm ba nga xamante ni tey bàyyi nañ ko. surtout combat bi suñuy camarade bi ñuy jóg di dem euh, pacifiquement devant le palais pour manifester c'était pour exiger à ce que nguur gi mu dellu si ci décision augmentation prix électricité bi ba ñu jàpp leen. tey jii ni ñoom ñëpp a ngi ci biti incha allah ci fan yi di ñëw dinañu amal ndaje ak woy taskap ak journalistes yi. pour la suite du combat parce que combat bi dey continuer voilà il faut que yi ak ñi mu àndal ñu yërëm sénégalais yi xam ni sénégalais yi sonn nañu et que yokkutewu courant bi munul woy jërëjëf